leen siyaar baax maa leen siyaar baax maa leen siyaar baax maa leen siyaar baax Lu waxtaan bu baax baax baax baax waxtaan baax na sama ma contribution dama ni ku ci deful lu yoon la war a jàpp tëj wala teg lay daan ku ci sol soli solin bu bon war a jàpp tëj ku ci woy loo xamante ni du yoon ne wala jàpp la tëj wala teg lay daan ku fi rey nit ñu rey la ku fi sàcc ñuy dagg sa loxo bu yàggee léegi léegi léegi léegi léegi Sénégal ne cocc waaw France a ngi nii fu nekk foo dem fu nekk doo fa doo fa dara doo fa dégg dara loo xamante ni tey euh, lu yàqu la walla lu ñuy eh, yàq la fépp dëkki dëkki réew Sénégal rek moo ci déporté Sénégal kese ci déporté boo duggee YouTube lu ne di ngay te loolu noonu Sénégal ak nuñ ko fonkee ak nu ak nit ñu baax ñi fi ak kilifa yi fi nekk dañ ko war a fonk respecté ko. salaamaaleykum asalaamaaleykum sama gaay ci aar naa leen béggee naa leen moom li ngeen def nii nag a euh, rafet na trop trop trop trop ngeen def nii moom vraiment kontaan naa ci trop euh, li ngeen def nag bu amoon nañ ci ñoo xam amoon nañ ko lu bëree bare bëri pari comme seen genre yi peut-être nit ñi dinañ mën bon di xam lu xew ci dëkk bi dinañ mën a wax dinañ mën di xam bon loolu pour ñi mën di ci wax yenn yi quoi vraiment seen kii bi dama kontaan naa ci trop bon kaw ñi ñi wane noonu ñi ngeen di lim noonu man moom vraiment affaire fi mu toll nii moom dafa ma dépassé parce que man yaakaaroon naa ni Sénégal kilifte bu fi nekk diine gi fi nekk ak Sénégal fu ko monde bi teg yaakaaroon naan am na yenn yoo xam te ne bu demee bay tàmbali rek bu ñu koo bàyyi sax muy law ci saasi lañ ko éliminé bu ñu xam ne Sénégal ñuy woote dëgg la ci ñoom mais dama gis ni comme ni nga ko waxee rek ay yenn vaurien yoo xam ne yooyu tekkul dara di jóg di def la neex fii ci dëkk bi def naka sutul noonu te kenn du ci wax dara ma affaire man daf ma yéeme léegi sax laay wallaay daf ma yéeme léegi trop ok gars yi merci siyaar naa leen jaajëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ bi ñoo ngi lay siyaare yi lu ñuy wax Modou Diène la ñu ngi lay siyaare bu baax dama laal deg ci Facebook bi ma jël sa numéro di rafetlu bu baax a baax a baax sa taxawaay sa taxawaay si société bi ak sa waxtaan am na solo trop ndax comme ni nga ko waxee rek euh, ñi nga xamante ne li yàq euh, adduna bi mooy li yàq surtout Sénégal mooy euh, ñi war a wax bawuñu leen ñu wax waaw ñëpp ay wax ñi war a wax ak ñi warta wax yépp dañuy wax te ñi war a wax lépp wax dëgg yàlla bu ñu doon wax ñi war a déglu di déglu ñi war a jëfe di jëfe kon jàmm rek ay am waaye wax dëgg yàlla Sénégal fi mu nekk nii doy na waar doy goo waayar goo xamante ne ku ci maandu comme ni nga ko waxee ku ci maandu rek am nga ci responsabilité bu rëy ndax nag lii Ouzin kayital def ak yeneen ak yeneen bi jëf ñu ñaaw la joo xamante ne wax dëgg yàlla képp ku war a wax ñu dégg la rek dangaa war a wax ñu dégg la boo ko mënta dindi waaw nga naqarlu ko ni yooyu yëpp boo ko ci deful daa mel yaa ngi jàppale daal ki koy def comme ni nga ko waxee rek waaw rafetlu nañ bu baax a baax baax wax dëgg la euh, ñun nag wax dëgg yàlla dañoo bokk ci ñi nga xamante ne dañoo war di déglu. ndax xam nga Sénégal daa bari bagage dafa am ñoo xam ne dañoo war a feetewoo rek di déglu ndax euh, kenn ku nekk daa am lu la yàlla jagleel lu la yàlla jagleel rek nag boo ca yemee rek te di ko doxal na nga ko war a doxale jàmm rek ay am mais déedéet daa am loo xamante ne fa nga war a yem te yemoo fa ngay jéem a wax wala ngay jéem a jëf te fekk waroo jëf waroo wax waaw euh, kon su ko defee rek ki warta jëf warta wax nag bu waxee waa mu jëf rek jëf lu ëpp wala mu wax lu mooy li fi ne moo tax doy na waar daal ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la di rafetu lool sa taxawaay eh, te xam ne rek boo ci bari woon ay moroom wax dëgg yàlla kon mën naa demee ne nu du lay siyaare bu baax a baax jërëjëf jërëjëf sëñ bi. waaw asalaamaaleykum maa leen di ziar di leen bëggee di leen ziar bu baax a baax a baax di leen bëggee tamit mais dama bëgg di leen ñaan tamit benn benn affaire xam nga waaw ngeen gën ñaax góor ñi nga ñu nekk góor yàlla quoi parce que dafa am loo xamante ni xam nga bu amee Sénégal rek après Sénégal affaire yi day gën a waaw day gën a parce que góor day def yëfi góor jigéen def yëfi jigéen te parce que am na ñoo xamante ni xam nga dañuy bëggoo góor te fekk mooy loolu noonu quoi waaw maa ngi loolu rek laa man nag maa ngi nekkuma Sénégal benn sax. mais lool rek laa leen di ñaan pour ngeen def si comme que si internet bi ngeen nekk ci laa jëlee seen numéro ngeen def si benn xam nga def si benn gëstu bu yaatoo yaatu yaato yaatu waaw def si benn gëstu bu yaatu daal waaw loolu rek laa leen di leen ziar tamit di jégalu si kàddu yi tamit maa ngi si jégalu bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu la xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. Eh, eh, di rafet rafetlu taxawaay bu rafet bi nga xamante ni yeneen ko am ci askan wi rawatina ci Sénégal ci pas-pas bi nga xamante ni yeneen ko doxal lépp loo xamante ni ñaaw-ñaaw la wala loo xamante ni luy ñagasal image Sénégal saa su nekk yéen ngi ciy bàyyi seen wax di ci xar seen tànku tubéy bu a baax di wax ni comme ni ko Olof Njaay di waxee rek bi li ko luur dañ koo li tax tool bi li ko luur dañ koo ñagaale fi ne koo ci laal doomam fi ne mu taxaw ni eh, gënuma dëkk Sénégal wala gënuma baax fu ma bokk ba pare di def yeneen yi nga xamante ni mooy ñaawte fi nga xamante ni mooy li gën a bon muy li nga xamante ni mooy góor jigéen yi nga xamante ni mi ngi commencé ñëw Sénégal yàgg na fi nag mais xëy na day dañ koy soog a fësal muy ñëw par ndànk-ndànk mais li ci am problème mooy nguur gi am nañ ci part responsabilité bi nga xamante ni moo leen war a jël jël seen disposition yi nga xamante ni moom la ñuy wottoo li nga xamante ni mooy góor jigéen yi nga xam ne mi ngi ñëw Sénégal ndax waa Europe fi ne li ñuy dund fi ne loolu la ñu bëgg dundloo te ñun dañoo nekk ci réew moo xamante ni Serigne Touba Xaadim Rasul dafay nekk maam Limaamu Laay maam bu Gunta Njaasaan maam Baay Ñas kon am na lu image yu ñaaw yoo xamante ni waruñu koy bàyyi sax muy dugg bi Sénégal ba ñu koy jël di ko publier ku ci nekk di ci jot ak yooyu wàllum góor jigéen ci boppam ñun dañ ko war a xeex dañ ko war a xeex ndax góor jigéen naanaam kàddu gi ngay tudd di ko wax sax suñu borom bi ñu ay bàkkaar yoo xamante ni sax du xam nu du nu mu toll ci këru àddina kon loolu tamit ñu ngi sàkku ci mbokki taalibe yi rek ak ñi nga xamante ni tamit ñoo yor nguur gi yor li nga xamante ni mooy lu dugg ci ñoom lay jaar luy génn ci ñoom lay jaar tamit ñu taxaw ci wax ci wattu ci loolu bu baax a baax a baax a baax maa ngi tudd bu baax tey jégalu ci kàddu yi nag damaa doon loo xamante ni tamit il faut ñu wax ko ndax ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk te ñun tamit lépp lu baax bëgg ay ndaw lañ waaye su nekk rek ñi xool li nga xam ne moo jëmale dëkk bi kanam ñu di ci dox di ci wax saa su nekk ndax waa Europe bëgguñu tamit ñuy gis ñoom bëgg nañ ñoom ñu def suñu image yu ñaaw ñu di ko jël ñoom di ko capturer naan xool waa Sénégal lii la nekkee te loolu lépp ñoom ci ñuy tukki di nooy bopp ban jël di di leen ko accepté loo ñu ko di accepté ba dikk seen doomi réew di leen ko tegal loolu tamit doon na loo xam ne lu ñaaw la tamit ñu ngi ko ñaawal bu baax a baax lu xew TV nag ñu ngi leen di rafetlu bu baax baax seen taxawaay ci askan wi di ñaan sax mu gën a yokk gën a law bu baax a baax gën a yaatu seen mbokkum taalibe Ass Mbaye jaa ngeen jëfati. waaw ah, sëñ bi maa ngi lay siyaar naka coono yaa ngi si jàmm maa ngi doon déglu sa kii bi nga doon def ci Ousseyn booy Ousseyn Kayta xaw ma waaw mais man comme li ma si doon wax ci commentaire damay topp vidéo yi lu bari bari sax mais comme li ma doon wax ci commentaire bi dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo leen di dooleel di leen defendre waaw maanaam surtout ñi ko ñi naan dafa dof dafa dof Ouzin dara dëlu ko day taytaylu waaw man mënuma mënuma comprendre nga yor say oto oto yu rafet di dem fu la neex ci réew yi ba pare ñu naan danga nga ngay toog di wax lu la neex loolu moom mënuma comprendre te ñoom yi ñuy def nii léegi dañoo xewal benn benn kii boo xam ne maanaam maanaam fu ñuy jaaree fu ñuy jaaree gën a siiw daal gën a tàkk waaw dañuy dem sol loo xam ne wala ñu def loo xam ne sénégalais yëpp dañ ciy wax waxuma la yi sax ne daanaka réew yu bari dañ ciy commentaire bu ko defee ñu jaaree fa gën a siiw ñu gën leen a xam après ñu génn jéggalu waaw boo xoolee yu mel noonu dañu ñu commencé léegi loolu nag dañ ci dañ ñi ci war a jóg ñoo ci jógul yi ñoo ci ànd ak ñoom nguur gi ci boppam moo ci ànd ñoom moo tax affaire yi mënul yomb li fekk gi ba nguur gi génn wax ci lii du fi mos a jóg waaw mais nguur gi dafa seetaan trop. asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama mbokk yi ak waa WhatsApp yi ak sama mbokki guru bi ñuy wax ndaw si doon wax sànq doon wax tey jii. ki ma déglu mu di ko wax di wax ci affaire góor jigéen ñi ay ay Ouzin Keita ak ñeneen ak ñeneen ci ndaw si nee na catholique la waaye day day day day yi saamu giñoo giñee sëriñ Babacar si wala sëriñ Touba gis nga ndaw soo sii ndaw suma naw la ku baax a noonu ku baax a baax a baax kooku moom bu ñëpp meloon ni moom léegi léegi Sénégal réglé ceg réglé ko nit noonu lay def nit bu amee lu ko naqari da koy wax da koy jooytu bu fekkee am na fu mu koy jooytoo da koy wax ba ñëpp dégg ko li mu wax dëgg gu wér la wax ci xam naa ne xolam ci xolam la ko tibbi li mu wax ànd naa ceeg moom da wër na yàlla ànd naa ceeg moom nit ndaw su baax a nga noonu ku baax a nga noonu ku ku ku ku ku bañ lu ku bon a nga noonu waaw ku bañ lu bon nit nit ku baax day bañ lu bon waaw day bañ lu bon nit ku baax day bañ lu bon Sénégal ah eh, war nañoo war nañoo tiit suñ seen bopp ndax Sénégal ah, taw bi ni mu daan tawe taw bi tawatul de ci teew yu bon yi nekk ci réew mi rek moo ko def nit ñaa ngi def lu bon ñu ngi nax alali jaambur di lekk di di rey nit ñi di jël seen alal xam nga ne moom nit ki nga benn téléphone dong wala nga rey nit ki fekkoo ci moom lu may ab téléphone wala fekkoo ci moom lu may benn ñaari téeméer wala ab benn cinq mille nga rey ko ci noonu mel na ku ku doon rey ab si ndax sax da nga ko da nga yërëm waxtuma la lu day day na nit bu jëkk din daan wax naan din daan wax naan di Sénégal din daan xas di wax ñag yi naan ñag yi xanaa kooku ñag la naa nangam ñag la gis nga waaye léegi dafa mel na ñag yi ñu daan wax bu jëkk ñag yi ñoo tane Sénégalais yi léegi waaw parce que léegi ñag yi dañoo nite dañoo nite léegi waaw Sénégal yi ñoom ñoo toll ci loo xam lii bu jëkk bu jëkk espagnol dañ daan dañ daan jàpp nit ñi di yóbbu di def bandi bandi di yóbbu ci àll bi di laaj xaalis yooyu yëpp jeex na léegi yooyu yëpp jeex na Sénégal rek moo ci moo ci des léegi ah nga jàpp nit wala nga def sa yëfi nga def sa yëfi yëfi yëfi bandi bandi lu ndax nit ki te arrêté ab taxi fekk yow bandi nga nga fexe ba yóbbu taxi bi ca taxi bi yóbbu la ca àll ba nax la wala mu jéem bu dee jigéen mu jéem laa tëddee bu dee góor mu nangu sa alal rey la ah? yëf yu bon yooyu moo war a jóg war a jóg ci Sénégal moo war a jóg ci Sénégal xam nga nit liggéey alalam nekk ci àll bi nit liggéey àll alalam ñu xam ne foofu am na amul amul amul autorité yu jege foofu nit jóge yor ponk ay ponkol jóge ca àll ba yor seen 4-4 ñëw eh, fëgg ku guddi yor ay ngànnaay jees yi man dama jël dong man man yet benn yar dong yaru yaru yaru yaru yaru yaru garab bu tooy dong lu ko nit mën a jëmale ci ci nit rek di ko dóor waxtuma lu day na lu day na jees yi ah, lu day yi nga xam ne kon Sénégal léegi ñëf nit ñëfa ne dootuñu ay nit waaw lu day na jees yi wala lu mel na xepp walla lu mel barre de fer nga di ko yor di ko xàcc di ko jëmale ci kaw nit ah mu ne ko fuñ daanu wala dere ji tu dere ku koy att na def nga xam ne foofu nit nit nekkutu fa ci Sénégal léegi loolu moo fa fees ah gouvernement bi loolu yoonam néewutu ci waaw yoonam néewutu ci waaw liñ wax faj mi war góor góorlu ci faj mi war a góor góorgóorlu ci sécurité bi nit ñi eh, nit ñi bandi yaa ngi ci àll bi di di di rey nit ñi di jël seen alal bandi yaa ngi ci Dakar di rey nit jël seen alal bandi yaa ngi fu côté bu ne bandi yaa nga fa waaw li ndaw si wax nag dama cee kontaan ci bés bu seet lu mat fukki moroomum dugg di wax yu mel noonu waaw ak ilimaan yi xani xam ilimaan bu baax dégg naa kër muy wax koo xam kii moom itam li muy wax ci xolam la ko tibbe waaw kay jërë ngeen jëf asalaamaaleykum lu xew TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax voilà donc gëj nañu dugg depuis série un euh, homme maîtresse un homme marié d'une maîtresse voilà <laughs> xam naa suñu série bi nam ma nañ ko mu ngi noonu donc euh, man damay wax si actualiser euh, li actuel li am nii mooy question thème bi waaw si li xew foofu si Sénégal mooy maanaam borom ñaari tur yi affaire yooyu noonu voilà surtout Ouzin Keita xaw Ouzin Keita waa li mu def noonu voilà donc euh, <laughs> doy na waar daal gis nga man man ci sama jàngat euh, mooy gis nga ñun sénégalais yi laa man sama man bu ma waxee africain sax day ma ne maa boole africain ñun ay sénégalais lañu ay jullit lañu majeure partie sénégalais c'est des musulmans mais gis nga sénégalais lu mu roy rek dàq bulaa balaa may dee ñu naan tubaab yi wala nasaraan yi gis nga tubaab yi ak ñoo bëgg lu baax ak ñoo respecté seen diine ah. du ñu def nag n'importe quoi gis nga bu ñuy dem seen église yi dañuy correct waaw wax ju correct la ñuy wax wax ju jiw la ñuy wax dañuy toogi ndànk mais pourquoi pas ñun pourquoi pas affaire bi ah, dama ne gis nga affaire bi éducation la base bi xale yi nañu delluwaat yaru na daara yi ibbuku waat lool la gis nga kilifa diine yi même bu ñu waxee it nañu yar njaboot gi ci biir suñu biir kër yi balaa xale yi di génne loolu la voilà mais balaa may dee ñu naan nasaraan yi fiy dugga nasaraan yi yàq euh, gone yee nangam nangam mais ku nangu ñu yàq ñu yàq la ku fi nangu ñu yàq la ñu yàq la nasaraan yi dañu respecté seen dëkk même buñ ko fi autorisé fii wala maanaam wàllum góor jigéen ñoom am na si ñoo xamante ni bëgguñu ko. mais pourtant dañu ñoom ñu ñu ngi ko ñu ñu ñu ngi leen kii lijjantiw ñu leen sax ñu ngi nekk ci li leen seeni parent éduqué jox leen ñu ngi respecté seen bopp dëgg yàlla waaw donc mën daal pour pour pour man nañu delloowaat éducation yi surtout loolu la rek yar yi la rek ndax boo yoree gis nga bant bu tooyee nga koy nga koy. nga koy dressé noonu lay dem noonu lay euh, ni ñu koy waxatee noonu lay continuer mais gis nga bu xësee ba wow soo ko bëggee jubbanti day damma et ce sera trop trop trop tard loolu kese la voilà xam nga ne euh, nu mu tuddati ñiy lëmbe internet bi muy Pawlish muy euh, nu mu tuddati xale bi def xaw ma dara kun la xaw ma lan ah de si lii si base bi au début la mais dañ leen di bàyyi ba ñu taar taar ba ràkkaaju ba sonal nit ñi ku nekk di wax lool kese la voilà ah wàllum góor jigéen moom yàlla nañ si yàlla musal te dëkk bu mu nekk nag baaxul ku si mën a jóg wax si nga wax si waaw ku mën a ku mën a wax si sa njaboot nga nga nga génn ko si ba mu set ba delloo ko waat suñu boroom mooy li gën voilà loolu kese la man day man sama jàngat lool la nañu yaraat suñuy doom balaa ñuy génne si biti li si des nag sëriñ ba ba sa daara ja mooy yeggal li des waaye sa doom yàqu ba pare nga naan na sëriñ yi wax mais c'est quoi ça ah day na waar nañu yaraat xale yi loolu la nañu éduquer xale yi gis nga tubaab yaa ngi fii dañu yar seeni doom bu ñu waree jàng-jàng ñoo leen di yóbbu ba si école ba ñu dugg bu ñuy wàcc ñu jëli leen voilà mu ngi noonu xale yi am xale yi duñ duñ la sax xool ndax yaru bu ñu yaru duñ la sa lijjanti buñ la xamulee duñu wax ak yow loolu la mais Sénégal lu mu rey rek dàq fecc mi bari na bari goo xamante ne man fa may liggéey damay li tubaab bi di na maan euh, euh, ci sénégalais ma ne wii mu ne ma seen foot match yi soo leen bàyyee fecc bi rek di ngeen di ngeen di di ngeen di ngeen avancé ma nekk ma nekk loolu du dara c'est di sport c'est du ambiance mu ne noonu vous dansez trop mais les gens le remarquent c'est ça c'est ça góor bu demee bay fecce comme jigéen kon bu bu bu si góor jigéen raxee waruñu bett loolu kese la loolu kese la waaye dañ leen di gis ñuy ñuy xawma euh, raas gin xawma kii yooyu nu mu tudd xawma affaire yooyu noonu ñuy xaxataay di ree naan lii moo xew et puis c'était trop tard dañ siy nekk di commenter di fecc rajo yi télé yi mais c'est di n'importe quoi man de man maa ngi jéggalu sama kàddu yi su ma fi waxee daal lu dëng ci man la su ma fi waxee lu jubit suñu borom la mais daal doy na waar trop trop trop trop loo wax wax wax wax am loo bàyyi voilà yal nañ ci yàlla musal daal te yàlla sàmm ñu yàlla musal ñu ci yii te yàlla sàmm suñu njaboot gi may Sénégal jàmm ak salaam mais daal doy na waar salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum leen di nuyu yéen ñi nekk ci TV yépp ma gis seen whatsapp bi ma jël ko xam ne fii rek la mu mun a jàllale comme waxam quoi comme maanaam sénégalais ki bëgg Sénégal bëgg jàmm rek di am senegal quoi toog ba léegi nit yi di gis yoo xamante ne Sénégal maanaam yéeme na quoi comme ay xawma Ousseynou Keita lañu koy wax ay noonu dof yooyu ba pare te xam nañu fi ñu dem quoi ñooñu dañu yab Sénégalais yi de ñooñu tooñ Sénégalais yi quoi nekk nekk ay ay góor jigéen ay góor yi di wax comme jigéen yéeme na de senegal wala Sénégal jëm léegi waali def na fi góor jigéen ñu ne xamuñu ko quoi xamuñu ko léegi amul problème yooyu yëpp pentuur mbuba la loolu garaawul quoi waaye yow ngay góor ñu solal la ndoket nga mel ni jigéen yore walis lépp benn tiset góor nekkul foofu quoi parewuloo comme Baay Faal parewuloo comme nit ku baax ba parewu comme comme walaakaana quoi ñoo bugg teg loolu si Sénégal nga nekk nit yi seet nga sof ko doomu jàmbur yi by forcé ak si télé boobu mu nekk ba koy gis télé boobu tamit tooñ na waa Sénégal ah. kooku dafa tooñ waa Sénégal ya ñu noonu Sénégal yi ñu war a wax war nañu waxa xam ne Sénégal du kenn moo ko moome ñun ñi nga xamante ne amuñu njëriñ si Sénégal sax bañ dañu bokk foofu quoi dañu bokk foofu dañu ngi tooñaale ñëpp te waruñu tooñ ñëpp maa ngi nuyu ñëpp bu dara amee foofu lu baaxul rek doomu aadama rek waaye loolu du woon sama sama jubluwaay quoi lu ci baax tamit ñu xam ne yàlla rek la parce que Sénégal moom rek soo lañu soxla foofu ab taalibe ab yiw ab sénégalais comme sénégalais quoi nak góor yàlla nak góor yàlla day rafet quoi góor <coughs> góor nga sol koom ñu ne waaye xoolal ma Baay Faal bi loolu rafet na ci góor de ci Sénégal ñu toog ñu gis ay waali yooyu noonu ay ñoom Ousseynou Keita xam nga ñu ngi ay affaire góor jigéen quoi di sol comme ay jigéen quoi ñooñu noonu yàlla yàlla yàlla rek mooy buur maan ñooñu war nañu dimbale Sénégal ak sénégalais de ak suufu Sénégal yi de ñu rus nit yu ma nit yu mag yi te noonu ñoom Serigne Touba ñoom sëñ Fallu bii ma jàkkaarloo nii fii nekk fii si réew mi nii ndeysaan est-ce que ñooñu di couvrir sax su dundu Sénégal nga nekk ci suufu Sénégal ci biir Sénégal ñu lay naan da nga dof ngay dof dofu si kaw nit yi di def yi waaye kooku ñooñu war nañu jog si ñoom de wala ñu former ay groupe boog ñooñu ñoo jóg boog état bi mu jóg mu wax boog wala sénégalais yi ñu jóg boog ah yéeme de ak waaw maanaam genre image yi ñi ci ànd genre Ouzin Keita wala ñu mel ni moom ay Pawlish Mbaye man jàpp ma ne ay doom aadama lañ man pour man malay sax ñu lañ gën parce que nit ak lu métti métti bu fekkee yow da ngaa bokk ci xeetu jullit boo gisee lu ñaaw war nga ko mën a ñaawlu mais nit ñi dañuy gis lu ñaaw ba pare mel ni moo gën a rafet li rafet li lu baax quoi waaw dañuy gis lu ñaaw ba pare mel ni moo gën a rafet lu baax kon mooy Sénégal am nañ problème sérieux problème bi nag man pour man ñun ndaw ñi ñoo war a jeunesse bi ñoo war a jël suñu matuwaay bu baax a baax lépp lu gis lu yoon ñi bañ ci xaar état bañ ci xaar kenn réglé ko ak suñu manière waaw parce que wax ji moom bu dee kon ne wax ji bu yàggee nii rek maanaam ki ngay xuloon di xulo moom da nga dem ba sa xuloo dut la toppatoo de réaction moo jot instant bi ñu dana war a réagir parce que ñi bu leen bàyyee suñuy sët ak suñuy sëtaat bu ñu ñëwee jamonoy ngóor jigéen mooy xew ci dëkk phénomène ngóor jigéen ñun ñii di wax nii dèjà mënatuñu changé quoi parce que am na lu gëm am lu nekk suñu bopp mais innocent yi ñëw ak tout tànk ki nga xam ne xamuñu la xew ci àdduna ñoom la ñuy yàq góor ñu topp ci genre Ouzin Keita di ànd ak ñoom ay moromam la rek ay ngóor jigéen lan parce que Ouzin Keita képp ko ànd ak moom ko ci góor góor jigéen ka bu dee jigéen ñi nag jigéen moom moo gën a bëgg ngóor jigéen ko mën a gis bu dee fii ci tubaab yi jigéen yi di maanaam bu sañaan bu juddu góor bu juddu góor jigéen ngay doon waaw léegi nag ñoom ñoo yor seen i lobby yor seen xaalis ñoom rek di financé parce que xam a ma rey la sax fay reyal ma sa mbokk ma fay la xaalis bu accepté ko ay lobby farmaso ay nguur jigéen rek ñoo nekk Sénégal lii dafa ñaaw dafa salte ñaaw na salte na trop vraiment quoi kenn xamul Sénégal fan la jëm ëllëg mais bu ñu jël suñu motuwaay ñun ñi wax ñun ñoo war a former ay group former ay association xamante ne bii duñ ci xaar Macky Sall parce que Macky Sall boo ko xaaree dëkk bi du mën a avancer waaw Macky Sall mooy doole ngóor jigéen yi parce que dégg naa loi boobu ñu accepté ko bu yàgg kon nañ ci jóg ñun suñu bopp xool nu ñuy organisé woo am nañ xel ñi ngi xalaat nan xalaat ci suñuy xel nan la war a mën a def pour protéger suñu réew man loolu kese laa ci am lu ma ci wax quoi ok merci beaucoup am mbokk yi ñoo leen di bëggee bu baax dinañ jox seen wàccuwaay waaw yéen ci jom bu baax a baax Sénégal moom man ni ma ko gisee léegi dama jaaxal parce que nit ñi léegi bëggatul lu baax lu bon moo leen gënal lu baax waaw am na benn waxkat nag boo xam ne bii nitu yàlla la daan wax ci waxu yàlla te ñu nekk ay tuut tànk wax na jamono ngi ñëw phénomène nguur jigéen yi dina bari doole trop ci réew mi bu nga koy wax yàgg na trop parce que boo dee senegal Sénégal dañoo bëgg xaalis te nangu noo liggéey bëgg nañ sañse bëgg nañ programme bëgg nañ lu xew ñu teew te nanguwoo liggéey donc kon ah ñi nga xamante ne bi doon yor seeni lobby yi soit muy faramaçon wala muy lobby ngóor jigéen yi ñoom dañ lay dooleel parce que boo dee xool comme par exemple Ouzin Keita événement bi Ouzin Keita amul lu mu si sees mais benn lobby ngóor jigéen mën na ñëw may ko benn 6 millions wala benn 5 millions mu fay si sees li ci des mu yëpp ci poosam li ci dund mu rekk maanaam mu tiré benn message boo xamante bii nii li mu bëgg dina ko am mën nag sama xalaat ak sama gis-gis mooy comme ñun chaque jour koo mën di gis ci réseaux sociaux yi mi ngi naan état bi état bi état bi état bu fekkee dem na ba nga xamante ni bii nii maanaam jëlu responsabilité yi mu war a jël ñun ñoo war a jël sunuy responsabilité képp kun gis ci mbedd mi ñu toroxal la def la loo xamante ni bii ñu ko gis xalaatuñ génn ci mbedd mi di doxe nit ñu di doxee parce que affaire yi à chaque fois à chaque chaque mois bu nekk kenn génne benn geste chaque mois bu nekk kenn génne benn geste suñu continuer di wax alors ko wax kese te amul benn réaction mu tëj jëf lenn mais lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw ñun ci dëkk tubaab bi la ñuy dund mais tubaab bi sax dunduñu lii lii Sénégal rek la am salte na ñaaw na mooy bëgg bari na ay bëgg bëgg te nangu ñoo liggéey moo waral geste yi ngay gis nii wala ñu bëgg xaalis boo xamante ne bii ba pare nit ñi addunaa leen gëlal alaxira te billaahi ko xam la xew alaxira di nga moytu bu baax a baax doo fab sa àdduna jënd ko alaxira doo sa alaxira nga jënd ko àdduna quoi ndax li temps bu ndaw la lobby yi nekk sa ginnaaw mën la financé ba pare feebar dab la du doo jóg sa àdduna ba kër ngay dee te boo dee sawar a nga jëm parce que dafa am loo xam dafa ñaaw dafa salte image yi ñi ci ànd ak ay genre Ouzin Keita yi sax